am na ko ma dooroon ci turu Mohamed li doon euh, dund fii démb mooy suñu paa bi ñu doon wax te mu génn àdduna di ko ñaar yàlla mu yërëm ko te xaare ko àjjana élément bu la ñuy dugg waaw mais dafa am kuy njëkk a wax d'abord pour ñu am benn aperçu ci li xew balaa paa bi di expliquer parce que paa bi li mu expliquer dafa gudd li mu wax bàyyi fi daa gudd paa bi faatu waaw dinaa la envoyé vidéo kër paa bi ak paa bi bi mu découvrir liggéey ñu ko def ci biir këram euh, moom moo ko sulli boppam moom paa bi. Oh. ba mu delloo ci la tëdd feebar. waru ko woon sulli. yaakaar naa fa la mbir ma nekk. ñu déglu déglu. ndaw si moom keroog bi ko paa bi mayee baat ñëpp ñëw paay ci koñ bi ñëpp ne ko yow da ngaa war a sant yàlla ndax sa kër gi nim mu ko defoon def ko jàpp ko def ko comme auberge kenn ñemewut a wax kenn du wax ñëpp jàkkaartaay di dugg oto yi di gaare ñii di dugg ñii di génn dangaa war a sant yàlla ba mu la abalee sa kër waaye bu fekkoon ne ba muy dem dafa dem bàyyi paa bi ci jàmmam mais dafa ñëw toj kër paa bi veer yaa kër gi maa ko doon vidéo sax ak liggéeyim sulli nii yëpp jàpp paa bi yàq avenir am avant muy yàq kër paa bi nii ay million paa bi la njëkk a détourné li ñu gën a nag ñun famille mooy ci ay nit ñu ànd ak yi pour ne nañ wax ci waxu kër gi miraas kër gi affaire yooyu mu jël kër gi loolu moo ñu gën a léegi ci la rakk paa bi nekkandooloon Italie kii ndi ko war ne ko ñun talaguñ ay waxu kër ñun suñ mag ji gaañu amagul sax une semaine duñ ko su dencee léegi kooku lañ tal mais talaguñ ay waxu kër mu yàq suñ famille bi laa la wax bi ko paa bi mayee baat mu ñëw yàq kër paa bi paa bi mu ko yóbbu yóbbu na ko gendarmerie ñoom ñaar mu ne ko jël ngal say bagage waaye yow xamagoo sax lu lay daal pare gu ci yow tàggook yow dinaa la suul dinaa la jaale nii la ko waxee paa bi bi bi mu demee la ko sànni kortu paa bi depuis mu ñibbee euh, Italie hôpital la nekk tubaab bi ne seet seet gisuñu feebar bi ndeke kortu lañ ko sànni fu ñu dem ci sëriñ ñi ne kii dañ koo sànni kortu fuñ ñu dem seetlu paa bi yóbbu ci sëriñ yi dem ñu ne dañ koo sànni kortu jabaram bi leen tàggool moo sànni kortu ba paa bi noonu la génnee àdduna fu ñu toll nii paa bi bi mu feebaree Italie ba sonn beneen rakkam bi mu nekkandoo loon foofu dafa woo jabar ji ne ko mbaay yëg nga ne sa feebar ba sonn ñu ne ko feebar kër ga moom mu ngi ci Pa Maodo Ndiaye mooy ilimaanu jàkka bi nekk ci koñ bi fii nga xam ne pa bi bi muy dellu lépp ay bagaasu këram lépp da koo jëloon teg ko ci loxo paa ilimaan bi ñu ne ko mbaa xam nga ne dafa feebar ba sonn waaye lu ci mënti am rek kayitu kër gaañ ca paa Maodo Ndiaye te boobu paa bi ay affaire kër kon moom dèjà xamoon na ne paa bi day Ndiaye loolu mooy aperçu histoire bi. pour ñu mën a introduire moom kay daanaka tënk na lu bëri sax. mais pa lan. yaay ki waxul dara. yii iya, nga envoyé nii mooy. gis nga vidéo kër googu noonu dafa mel ne comme kër gu nekk en chantier. ndaw si ak paa bi bi ñu bi ko paa bi mayee baatam. am na ci boo xam maye ko sax baatam paa bi def ni ko parce que dafa am rakam bu nekk ci kër gi am lu mu dundee ci kër gi. Mhm. paa bi ni ko kii mënut ma nekk ak moom. ndaw si ni ko kii bu demee ma dem paa bi def kaf ndaw si def dëgg paa bi ndaw si ramasser kër gi maanaam ba ci prise prise bi ñuy branché chargeur da koo prise yaa ngi nii kay. raxas kër ba kër gi set. léegi bi paa bi ñëwaatee ci kër gi nag ak ni mu setee noonu paa bi constaté ne karo yi am na ay karo yu niroowul par rapport bi mu ko defaree woon. Mm-hmm. ndekete karo yu niroowul yëpp foofu ci laal ay liggéey lañ fa def moom la paa bi yor martom na di tàcc di génne liggéey bu tee liggéey yooyu. léegi histoire bi nag njaay mooy paa bi dafa yore soxnaam. bari na boroom kër yoo xam ne bu ñu xëyoon benn dimanche rek. am jot. décrété ci kër gi opération sulli. am njëkk eh. opération sulli. Eh. na borom kër yi di seetlu seen kër yi. karo yu am différence. wala den ci tégalé bu hmm lu ñu tuk ak di changer la yenn say lan bop la li ci suufu ki wala li doon am ñu fee ya ñu ñëpp suul nañu <laughs> ñep sun tur ya ngi ci bin néeg yi mbaa ci té te yenn nga rum xale bu mool bëgg ci jël numéro sa xel mi jik jik mi sig la mi sig la <laughs> ñu yegal dégg nga jaay pa bi dafa soxnam hmm uh-huh. ndaw ci sey ñu dem ba benn moment am benn sëram bu fa ñëw nekk fa nekk bu rafet ba paa moo ko maye. Hmm. sëru paa bi wala sëru femme bi. paa bi dafa takk soxnaam. Uh-huh. ndaw si sëy ñu dem ba benn moment am benn sëram bu fa ñëw nekk fa nekk bu rafet ba paa moo ko maye. Hmm. sëru paa bi wala sëru femme bi. bi uh-huh. paa moo ko maye. Hmm. mais paa bi je rappelle que la nekk. léegi nag am na seen beneen sër boo xam ne ñu nekkoon beneen dëkk aussi nekk am nu mu fa nekkee yoon ba ñu ëmbal ko. paa bi dem da ci waslu ak comme kële ci indiwaat kooku aussi ci këram. kooku daal moo ñëw la kër ga changé. bi. waaw. kii ëmbaloon fële mu ñëw ci kër gi. waaw bi mu ñëwee ci kër gi. jakarta yi commencé gaare ci buntu kër gi. Ah. taximaan yi commencé gaare ci buntu kër gi. comprendre na. soldats yi commencé gaare ci buntu kër gi. comprendre na. dugg beeg gi mel ni tulleeg male. xaa ah, day jaay yàmba. noonu la ko def kiisee. waaw. Ah. léegi nag. kiisee la ko def soxna spa bi. am soxla dangay ñëw ci. soxna spa bi kiisee. soxna spa bi. Mhm. ak sëram ba fa ne. ak seen benn copine ñoo def seen association génn guddi dugal Jakarta ba ñu ramasse leen ñu woo paa bi waxoo ko. fekk ma nga bitim réew. waaw paa bi ne ko sa rakk ji mënut maa nekk ak moom. Mhm. fa la problème bi da tàmbalee jaay. histoire boobu nag dem na na ba paa bi dox ak tànkam ba liñ koy wax paa bi teg ci bëtam moom. gis ne booy dañuy jaay seen bopp ci kër gi. moom ñëw na ba dugg ci néeg bi waa ji ne bëri ci kawar bi dugg ci salle bi. ci kër paa bi. maa la wax lii. Hmm? histoire bu gudd. problème mu këyitu kër yaak njaay ba lépp ci biir. may ñu ci tuuti. Hmm. ndaw si. bu ma nekkee sax di wax ci lu bari loo xam ne def na ko fii ci kër gi te lépp loo xam ne ni maanaam lu ma la wax la ci éjo bii ku ma tegal kaamin ma waat ci alquran ne yokku ko wàññiwu ko sa lépp ci dëgg laa ko teg ndax dama ci am ay témoins yu leer diir ba may ànd ak moom ba léegi nekk à di daan sama doole ngir sama njaboot gi ngir yore ko yore bu rafet su loolu wër na waa koñ bi yëpp ndax fi ñu ma ko defal amul benn moromam boo xamee nii bu yeewoo ci koñ bi la am fu mel ne moom fi muy fanaan wala fi muy yendu la waaye nag dama koy wan gannaaw bu ma ñëwee day mel ne nekkul moom waaye saa bu ma ko wanee gannaaw mu nang tànkam nekk ca la ko neex ak lu neexul yàlla samay mbokk joo nañ ko guddi ak bëccëg kalaane nañ ma ak moom guddi ak bëccëg waaye buñ defee rek ma bàyyi mu jàll ne yàlla dina mos a leeral lépp bi ci jiitu mooy rakkam laa fi njëkkoon a yore fii ci kër gi moo ko ne ko sama yoon nekkul ci moom dem na ci ko yore woon moom laa ko joxoon lu mu ci wax loolu la karaba waa ji ñëwee maa yëkkati sama xaalis joxee ko takk sëy bi muur ko mu sëy ba léegi ma ngay sëy géege neew ñaare bi ba mu ba mu àggaatee ra beneen rakkam daaru musti la nekkoon kooku ba mu fa nekkee xale bu taxawaalu la fa nekkee bañ ëmbal ko fa mu déparé foofu ñibbisi fii Kaolack kooku génne ko mu ñëw bi mu ñëwee mënut a toog seen kër ñu yóbbu ko Tamba Tamba googu mu nekkoon mënu faa nekk ma gis nga xale bi see ma cee was la ak def comme dama defoon ak moom ndax kii sama soxna la ah, mën naa ne doomu ni jaay doom ko demal nga jël nga mu naa ko waaye ñemuma koon def sa tàgguma la moom bés boobu rek la doon xaar keroog ba xale bi ne cëpp fii ci ci moom lu ma neex la lu ma naqar rek lay ne neexul yàlla neexul kenn taxawaalu la fi nekk di nekk ci bois de nuit yi taxawaalu ndax moom magam ji nekk fii ci kër gi muy sama soxna ñoo bokk dil mu nangu koo téye ci caaxaan yooyu ñu nekk fi amee kon bi nag huit samay mbokk kenn dugg ci kër gi bu xëyee suba teel day yéen doo tëj buntu bi bët set ba lu koy jëndoo tëj suba ba ngoon jot bu guddee moom waxu waxi noppi jakarta yi rek borom taxi yi fii dañuy wër wëree di dugg ak génn guddee bëccëg sama dëkkandoor bu ma dëkkal fii moo ma njëkk a woo ne ma waaye sa kër gi ni mu ngi toj de sa bu fekkoon yaa fi nekk fii bu sama kër mele ne war nga maa woo wax ba mu waxee ma oo ko moom ci boppam topp ba xam ne mu wax dëgg la rakkam ut beneen xaritam kooku dafa dëgg ay mbokkam ay minigoon la ñuy sol nekk ci àll bi taxawaalu di tërër bañ ramaas leen bis fële police bañ leen jàppee dañ leen yéen lu tax ngeen def nii mu ne ko ñun ak suñu mag jee ñoo ànd sa ñu ci poussé keroog police dañ leen taxawal sama jarbaat mi ngi fii dégg li may wax moom ma njëkk woo ci guddi gi mu ne ma ah musiba am na waaye mënuma ko wax ma ne ko baa jàmm fii bañ ramasse leen nee nañ nag ay mbokkam fi ne ñu ngi lajante yi ñu génnee keroog bis boobu lu ma yendoo xawma lu ma fanaanoo xawma lu ma yendoo liggéeyu ma guddi liggéeyu ma bëccëg ndax nag bi ma ñëwee fii Sénégal fii toog ba xam ne loolu dëgg la laa ko oo bi ma delluwaate comportement bii ma des xale bi yor neexuma man mënatuma koo yor mu ne bu ñibbee damay ñibbi buy dem may dem buy génn may génn ma ne ko ah mu ne ma waaw ma foog ne moom man may caaxaan moom muy dëggal mu gaara fii kap yo sama bagage si la fa nekk mu jël ko dammata lal bi sànni ko ci néeg bi nga xam ne néegu gan laa ko fa defoon télévision ba meuble fa nekkoon ventilo ya lal ya mat laa ba kon lépp la jël ndax la da koo teggi damm ko teg ko fa ak coiffeur ba dem yóbbu lépp seen tiitee ba vendredi duñ kii ngay dégg Abba mooy paa bi ñuy wax ay waxam nag dee ko commentaire ndax comme dafa faatu. Hmm. li ñu mën rek mooy dégtal leen lim fi bàyyi. Hmm. lim fi bàyyi te mu njoxtu ne li ko fat ci la bokk. Hmm. donc euh, histoire bi lay nettali noonu lim dund ak jabaram dund ko famille jabaram. bu subaa dinañ ko yeggale. incha allah bi nga commencé sànq muy waa ji wax ne dañ koo arnaqué ci turu Victorine Ndeye. pourtant hmm. ministre bi yëgoon na ko. Hmm. parce que ma communiqué boo xam ne. paa bi woon démb. waaw paa bi nga xam ne déjà fi ñuy wax ak moom yàlla sunu borom moom na ko. Hmm. dafa faatu. waaw mu doon dund situation bu compliquée boo xamante ne ji xale bu jigéen bu mu takkoon. moo ko ko teg. paa bi laata muy faatu enregistré na boppam ba bàyyi fi. wax li muy dund. ak li ko faat. waaw fu ñu yemoon démb. ñu ngi yemoon ci bi mu amee problème ak ndaw si wax ko ne ko mënutul nekk rakam bi. na génn waaw ndaw si gàddu bagage yëpp yóbbu. roñ kër gi. waaw ba ba ba daj ji prise au courant yi. salle de bain yi chaise anglaise yëpp la démonté. foofu lañu yemoon. waaw ñu yeggale déglu. moom ci boppam mu sukk fii ñaanuma jéggalu ma kon yëpp commencé génn fii mënoon naa koo rey mais ma xam ne kii bu ma ko reyee yoon dana dal sama kaw te liggéey jàmbur laa yor fële contrat sama contrat day daal di jeex ma toog fi nekk di kaso bi sama njaboot gi kenn dootu leen mën a tee yor ma bàyyi ko mu dem ma koy bàyyi mu dem la kon dama ne nag ma jéggal de ndax moom mi xamalu mu woon ne moom dafa am jëkkër daf ne dafa nekk fii rek yorate xale yi ma ne ko ah mun ne am waaw ma ne ko loolu dëgg la yow mu ne teg ma ne ko uyu ndax li nga ko wax dëgg la mu a teg ma ne ko yow kon amoo jëkkër dëgg la mu ne teg ma bàyyi mu jàll ci suba ga la ko weer naroon naa ko sàngu tudd ndax doom yi la ko weer sama bi ma ñibbisee fii trois jours laa fi toog quatrième jour bi ma mer mer mu metti dama koy jëli sama yaay fukk sama omi fi dima ñaan ndegam ne ma la jox sa yag na la yaq ala ju melni nii parce que démboo la détourné sa compte moom mamam jël ci yow 2 millions 2 millions 400 cent ma ne ko loolu yëpp yéen a ma ko tegoon mais la ma bàyyi woon sama xaliss dina genn sa mom ci goudi moma pekk pëkk pëkkal ba ma jóg toog mu ne ma kay ma wala xaliss bu fu mu jóg expliqué ma lepp lañ ci def ba expliqué ma sëriñ bañ demoon don fa yobbu sama tour di ma xaate ma bayyi mu jàll gam sama wajur wax na rek na bayyi mu jàll lal boobu noonu kere ba mu ñibbi si fii laay topp problème lal bi di topp problème lal bi ba mujj xaw ma ci dara ma dem ñibbi voyage boobu la ma yore woon ci xaalis yépp ci jëndaat ay lalak ay ventilo ay télévision ay loket ay poignée ñu kenn xamul laa ko jënda ba sama xaal jeex tak ba la bal ané boobu zéro place la ci man lal ba ba ma ñibbisee xamul lu mu def lal bi mën a ko am ah, un million deux cent mille la ma ko defaral woon benn xaritam mu nekk fii di sëy sama gannaaw kër këram a ngi nii moom la jëm jaay ko ko à soixante quinze mille francs CFA

wàcc ci digg kër gi dama ñëwee moroomu jéegam ñëpp ñu ngi toog ci buntu kër gi ay ataaya waaye sama jabaru rek moo tëb bëgg maa baare ndax xam na ne kër gi ak soo ngi ma dawal sama xel ànd ak tey mu ne tëll ci buntu intratu bi fi taxaw ci buntu bi buru bu bëtt laa fekk ci biir kër gi sama doom bu jigéen bi fi mu xam ne moo pon wàcc say doom ci saal bii di naa ko ay góor fii ci biir kër gi sa wallaahi lii ma la wax lépp dëgg la paa bii ma abaloon kër gi ndax ñoom seen kër dafa nangu woon seen ndox ma abal leen ci kaw paa boobu nee na ma gannaaw bi ma ko saa bu ma xëyee fajar fii fii la góor di romb ab militaire fii ci mu ubbil ko mu dem ñibbi def na ko ay yoon ba a attaqué ne moo ko defee dama koy doon gannaaw dem na santal yàlla ma ne ko alhamdulilah rabil alamin bi loolu yooyu yëpp amee bi ma ne tëll ci biir ci buntu bi dégg fi buru bu métti sama doom bu jigéen moom ma njëkk a fii ma ne ko reer nga ba pare mu ne ma noonu reeragul li may wax ak yëpp maa ngi dégg bur ma ne baax na mu déggee wax ji moom mu ne bërit ubbi bunt bi bëgg maa nuyu ma ne ko bul ma laal mu arrière ma dugg ci biir waa ji ne bërit ci lal bi daw dugg ci salle de bain ko bunt salle de ne ko dee sama waay mu ñëw ma ne ko jarul daw moom mii xamoon na ne bukki wiiri wiiri jaari jaari wóoroon ko ne na ñëw ndax naa tëdd ba guddi ñaan ci yàlla subhaanahu wa taala yàlla ma yàlla atteeg moom ma am lu leer ci mbir mi yàlla ma ci yàlla

léegi nag paa bi comme ni ñu ko doon dëkk ci ay noppam naan ko soxna si nàngam mhm. am na ko fii dugg guddi am na ko fii génn fajar te moom gisagu ko moom dafa bàyyi ba tega ci boppam bëtam moom comme maîtrise la de waaw moom dox na ba tega ci boppam bëtam moom te femme bi bi mu koy def kër paa bi la ko doon defe këram ñu yeggale ci confidence paa bi dama moom ci boppam mu sukk fii ñaanu ma jégalu ma kon yëpp commencé génn kii bu ma ko reyee yoon dana dal sama kaw te liggéey jàmbur laa yor fële contrat sama contrat day daal di jeex ma toog fi nekk di kaso bi sama njaboot gi kenn dootu leen mën a tee yor ma bàyyi ko mu dem waa ji koy bàyyi mu dem la kon dama ne nag ma jéggal de ndax moom mi xamalu ma woon ne moom dafa am jëkkër daf ne dafa nekk fii rek yorati xale yi ma ne ko ah bon mu ne am waaw ma ne ko loolu dëgg la yow mu ne teg ma ne ko uyu ma ndax li nga ko wax dëgg la mu ne teg ma ne ko yow kon amoo jëkkër dëgg la mu ne teg ma bàyyi mu jàll su suba ga la ko weer naroon naa koo sàngu sut ndax doom yi la ko weer sama rakk jabaram mi ngi nii suñu kër yee jàkkaarloo moom la woo ci suba ga di ko menace mu ne ko ah mu ne ko man ngay weer lu tax nga dem di woo saali boobu naan ko góor a ngi fii ci kër gi ba mu jël taxi fekk si góor subhanallah kooku daal di mer ci suba ga mu porte plainte ko police mook sama rakk bu góor ñu toog neuf heures dix heures onze heures ba midi ñëwul inspecteur bi ci bopp moo yëkkat téléphone am oo ko na ko gisee débat mu ne ko mu ne ko da ngaa am fii fii tey da nga ci am puntamento ak ñun rendez-vous lu man du ma ñëw léegi gisuma convocation du ma ñëw kooku ne ko voilà doo ñëw léegi man maa la woo sama téléphone ne la fi midi pile fekk yàlla moo xam gars yi doo ko yebal conva ñu dem Ndorong jëli ko andi takk ko comme andi ba mu ñëwee rakkam bu góor bi yore kër ga léegi ñëw na keroog te waxtaan woowu ak rakk doomu baayam ak beneen rakkam bu góor li ci nekk éju bi yëpp li mu fi def ci ay dugg moo ko naan ko la ñuy fanaan kon bi amul mag amul ndaw amul góor amul jigéen ba ci borom jakartaay ñëpp naa am ak raw santal yàlla kër gi mu def ko réseau seen jëkkër yëpp la ñuy fréquenté jigéen ñi amul jëkkër yëpp nekk ci àll bi taxawaa fii ba Dakar fii ba Mbuur fii ba Saly fii la ñuy fréquenté ubbi musique bi xar yi i yàpp ñu def lu leen neex mu ñëwee ba wax loolu ba pare ba nga xam ne yeewu naa ko ba ci suba ga dama oo sama grand bi ne ko seetal ma bunt yi bu subaa naa yónni xale foofu mu saaseel ma selleri yi ndax mën na faa def leneen lu dul loolu sama grand bi ne ma fii amul dara luñ fi war a mën a tëj vidéo yaa ngi ni am na danaa la ko yónnee daa gis sama buntu arméniaux yi buntu volontaire yi cadre yi douche bi boobu sama meuble bi télé baag lépp mu jël yoon yow buñ na bàyyee nga dem li nga waroon a yóbbu mooy sa lal say toggukaay mané président taxawal foofu mu taxaw fa mané ko mu ni amut la man na la wax nak li tax amut la ndax lal bu jël 1 million deux cent mille laa ko defaroon bu and ak croix koñ ba mom rek moko fa am lepp lu jigen di soxlu ci biir ma defal ko ko fa rakkam ma genné won di la jël jël bil tamata ko jaay ko moroomu jël muy sey fi ci dana ko karo la mer waat na dootuma ko jëndal ba dem ni du ko président sen na ko loolu la mu nopi mu xamné man mi wax na mu nako deugal lay jël jël ma matériel def yi indil ko ko mu doon dal tok ni du andi matériel ma tok aljuma samedi dimanche alterné talata alarba ndax alarba ak aljuma la présidentielle di liggéey ma demaat fa mu ne ma est que indi na bagage yi ma ne ko ko de mu ne ma ñemewu ko yëkkati na jox ma numéro ma jox ko numéro mu oo ko jotu mu dem ci jàllo secrétariat oo ko jàllo composé deux fois trois fois doog jot dem ci président ne ko jot naa ko ne ko ana bagage dama ne woon na dem jëli ko yóbbu ko yóbbul maa paamoon jaay mi nga taxaw mu ne ma demal nga dem jëli bagage insisté naa ndax mën naa faa dem mu dama ménager man laal ko yoon dal sama loxo sa man waru moon a dem sax di jëli bagage moom ñoo waroon yeewal IG ñu dem jëli bagage ndax ma fa demee erreur mën na ma faa dal mu wax ma lu ma naqare comme la ma sóoraale woon bu boobaa bu ma ko laal yoon dal sama dégg nga Ndiaye. ñuy déglu ne. waaw ñuy dégg moom faatu na. voilà lii lu wax bàyyi fi la. xaw problème bu mu dund diggam ak jabaram. Mhm. ba ca la doxee ñàkk ba kanam. ñàkk ba kanam ñu yeggale. léegi léegi mhm. njaay mhm. yaa ngi dégg muy wax ay waxu plainte. bi loolu xewee bi mu ko bettee ak góor ndaw si ci boppam moo dem attaqué sëru paa bi ne ko yaa ma boole que ni góor daf fii ñëw. effectivement waaw sër bi dem porté ko plant paa bi dem naa ak moom tribunal. ba jox nañ ko ndigal pour mu jëlee ay bagages maanaam yenn ci bagage yi fa desoon. léegi nag paa bi nanguwul dem yóbbu am na ñu mu yabal ñooñ am na yenn bagage yu ñu jëli mais ci fin bi nag fii nii paa bi dafay expliquer Ndiaye. yi bëri yu ndaw si nekkee woon ci biir kër gi dañ ko ko doon wax. par rapport ak ñoo xam daf leen aaloon kër gi par rapport ak facture courant yi par rapport ak facture ndox yi ñu ñëw buddi compteur paa bi buddi compteur ndox ma daq ay ja doomam école lépp. xew na xew na fa. te pa bi yëgul paa bi nag fi mu toll day ñaan ay doomam.

naa fële Italie ñëw ñu oo bàyyi Maodo woo ma a tàmm a ko demal Sénégal nga laajal ma lan moo tax ñu buddi sa buddi contour parce que c'est pas normal naka moom moo ko mosee jox facture bu waree fay vingt mille dix mille lay fay bokk la ca des wala mu joxe cinq ndax ñoo ko wax baa bi ne nañ ko ndaw si muy def baaxul ma ne Paa Modou mun mu ne ma cent xuma quatre-vingt mille xawma yu teg maa taxaw fa ma taxaw jël sama carte banque ma génne fa xaalis yónnee fay contrôle ba mais teewul contrôle ba ma ñibbi jee yow lay wax nii un mois laa fa toog ñu ñëw buddi sama contrôle ndox maire yi ma abaloon kër gi dama leen abaloon rek li sabili laa laaju ma leen courant laaju ma leen ndox dëkk rek laa leen laaj sañ may ma jàmm may sama njaboot jàmm ay dëkkandoor rek ñi seen kër gi ni taxalaan doo courant mu demee di ko joxe Paa mu lànk du ko jox man tam ma siisu na ko kon du ko sama yaay fii la nekkoon ma jëndal ko lal bu baax tegal ko da ko naan ràpp tëj ko maire bi feebar bay bëgg dee mu wàcc fi maire bi nekk ci biir bi taxawaalu ba quatre heures du matin ñëw jakartaa lay sol wala ay robam yu bon ba maire bi sama grande sœur ñoo xam ne li nekkatu yaa yenuwun maana ndax soxna si mën na fee dee ci diggante bi ñu jël ko yóbbu ko Kër Makar la kenn waxuma ko maa fa toog ba sama ñibbisi jot ma ñëw ñibbisi keroog jour boobu tuuti ma rey sama bopp ndax damaa dem ubbi néeg bi nam mu soxna si lool sama ah yaay baa dafa dee ma koy nëbb waxuma dara ma oo sama grande sœur bi mu ne ma li tax ñu ñëw ko jël si woon ko du yendal guddi du yendal bëccëg sa soxna si dafa feebar bu kenn amul ku ko taxaw ba soxna si dañuy génne àdduna foofu la gaañu sama kër gi yëpp dañ koo tas dañ koo toj dañ koo toj di fi suul ay gàllaaj fu ma dis karaw yu rawut ak moom rek ma toj di fa génne yoo xam ne nii maara day taali wala la sin danaa yoon yónnee wéti yoo nga xool ni mu sabootee kër gi ak ni mu doon toje karo yi di fa di fa def seen affaire këram yu bon yooyu noonu quoi bi mooy troisième fois sama yaay gaañu na sama mag bu góor ba ko doon demandé gaañu na damaa bëgg mu arrêté mu delloo ma sama alal c'est mu jéem a fexe mu delloo ma samay doom nañ ma dimbali ngir yàlla taxul sama sama doom yi quoi bu ma ñëwee ba léegi sax xale yi jibanañ ci ne ñu ngi fi dusu ko dusuñ ko sax xuma sax doon fi ñu nekk mais léegi lan moo ko gën a nekk jàppale ma ci ngir yàlla ak yonente bi quoi ma récupéré samay doom récupéré samay nattal bu ma dee ëllëg yàlla li may njëkk a laaj noo yore woon njaboot bi quoi nañ ma dimbali ngir yàlla ak yonente bi quoi def naa fi deux mois yoo xam ne sama njaboot bi disuma leen yàlla ko yalla yërëm. amiin amiin li mo mën wax de moy day la warté non seulement pa bi dafa def confidence. mais aussi genre testament laa ko mën tuddee. surtout jëmale ci ay domam ben bi dess moy mon pa bi waxul ci affaireu keur gi mais ay mbokam amna na suñu ma xamal né pa bi bi mu feebaree bañu ñu ndaw ci ko sa borom ko da feebar kayitu keur gi lañ la ko laajte paa bi wala ndaw si. ndaw si ci boppam. Hmm. ndaxte paa bi kayitu këram dafa am benn imam bu mu ko doon dénk ca koñ ba. yenn kiiwam yu bëri moom la koy dénk ndaw si moo leen carrément paa bi mu ngi dénk kayitu kër gi diw bi ñu rabee paa bi même pas une semaine ci la yable di wax ay waxu miiras. moom femme bi ba tey moom femme bi paa bi nag dénkaane na boppam dénkaane ay njabootam. Hmm. ndax ay mbokkam jël responsabilité xam nga yaa ngi yaa ngi wax yaa wax démb ne liggéey yi musul yi mhm. ay perkaal ak ay yu maanaam yu yu doy waar man dama jàpp ni loolu musul yi noonu am na lu ko si topp. ci yàlla paas. fu ñu dem ñun leen corte lañ ko sànni korte lañ ko sànni. ba suba ak jàmm ba ni muy génnaat. xalaas jeex na ba suba ak jàmm. paas 77 150.